ne peut pas être inscrit, ou bien s'il a été inscrit, doit être radié, nous précisons. Oui, justement. Mais nous avons ne peut pas être inscrit sur les listes électorales, celui qui est en état de contumace. Mais même nous, dans l'OLAVAR, mhm. Ousmane Sonko n'est pas en situation de contumace. D'accord, mais Ousmane Sonko n'est pas en état de contumace. Ismaël Madior Fall n'est pas n'est pas en état de contumace la décision est définitive elle n'est pas définitive est-ce que nous ci benn. moo waxoon na xeet daal yow rek. mais c'est-à-dire est-ce que. au-delà de ça mais au-delà de ça est-ce que nekkuñ ci situation où dañoo théoriquement wax l'État utilise tous les moyens possibles pour écarter Ousmane Sonko finalement. mais avec des moyens irrationnels. c'est-à-dire euh, ñu jégal ma ci cadre gi même fait ça, Il faut a harmonie fenn day am harmonie boo xamante ne nit bu ko déggee sax dina ne waaye peut-être nangam nangam mais saa yi lii dafa doy waar tout est en cacophonie c'est-à-dire mbir mi jaxasoo mel ni sabaru tas tey leer na leen objectif. Ousmane Sonko bu ñu bokk objectif boobu noonu chaque jour muy gën a leer ne tey la candidature Ousmane Sonko gën a valide tey la ko tey la candidature boobu gën a valide juridiquement politiquement moralement c'est le la candidature la plus valable actuellement ci échiquier politique bi parce que mais gis gisaguma benn candidat bu ñuy wooyal namm nañ la. non non non c'est une validation grandeur nature si c'est n'oublie pas que le professeur Ismaël Madior Fall mhm. pour son candidat euh, président Macky Sall faut dem un organiser meeting risque mu si ñu avons 2 millions de cartes il est candidat waaw koo xamante ne moom jarul ngay parrainage dina la ko Ousmane Sonko qu'on na mobiliser 5 millions de parrains 5 millions de parrain bari na de. maa wax loolu Ousmane Sonko peut faire plus que ça. Hmm. nous na ko. restons de voir ak. maintenant

Euh, requête boobu am prospéré. recours bi ah, prospéré maanaam c' est possible c'est-à-dire wax nga mënul nekk de. man maa ci yaakaar amoo ci amoo ci yaakaar la wax. Ah, ah. mais tey bu ñu demoon ba ba ba euh, euh, nga nga sa yaakaar yàqee ko maanaam. Mm-hmm. Ousmane Sonko ak ay avocat am la ñuy xaar ci tribunal bu Ziguinchor muy mu jox ndigal kilifa yi ñu delloo ko ci liste électorale bi maanaam wax ne dañ ko tooñ. Mm-hmm. amuñu woon droit génne ko ci. est ce que mën nañu xaar tey dans ce cas de figure l' état du Sénégal dafay nekk dans l' obligation réintégrer ko. Euh, binda turam ci fiche électorale wala mën nañu xaar état bañ a exécuter décision boobu. mënu koo bañ a exécuter loolu code électoral ko L43 nee na automatiquement jarul ay tribunal ba naan non da ngeen koo tooñ dugub déedéet ba mu recours recevable na euh, nangul nañ leen ko automatiquement Ousmane Sonko jarul révision exceptionnelle jarul intervention quoi que ce soit son réintégration est de droit day automatiquement est-ce que dans ce cas de figure mën nañu xaar peut-être l'état du Sénégal. non après dafay recours même s'il y en a même s'il y en a le recours n'est pas suspensif. xam nga dans ce cas de figure. le recours donc en matière pénale bi nga xamante ne. Mhm. tey Aliou Sané bi procureur defee recours. Mhm. dañ à la prison. parce que en matière pénale. Mhm. le recours est suspensif. mais en matière euh, administrative matière électorale. le recours n'est pas suspensif donc même s'ils font recours dañ koy dugal. alors su fekkente ne tey euh, beneen beneen beneen beneen alternative moom maanaam euh, yoon joxul dëgg ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko euh, moom. mën na dem lan moo ko lan moo ko desewaat. mën na dem Cour suprême. mais tey su demee Cour suprême boobaa est-ce que. dara tamit yaakaaruma benn composition chambre am wala juge bi nga xam ne moo moo moo. non non ci requête bi ñu. non mën na am non non mën na mën na bañ doon ñi ko defoon rek ñooy ñëwaat par force mais daal ak lu mënti doon. Mhm. man moom yooyu noonu yëpp moom jàpp naa ne. Euh, awma ci yaakaar daal non non awma ci yaakaar ci benn recours bu muy déposé ci tribunaux yi. alors mais Pape Moussa là aussi kon. mais Ousmane Sonko ba koy ba question bu nu ma yóbbante woon sax laa lay jox foofu sama benn nijaay ma ko yóbbante nee na sa nijaay la. Hmm. daf lay siiwut toujours mais dana dalaa dégg nga ne Ousmane Sonko ñi mu jàkkaarloon ñi ngi koy jaay doole ci anam bu ne. ci lu dul dëgg ngir fexe ba bu mu bokk ci élection yi. Hmm. mu ne léegi nag li mu bëgg nga wax leen mooy ñoom ñi gëm Ousmane Sonko bëgg mu nekk candidat yan pexe lañ mën a am euh, jaare ko ci yoon ba Ousmane Sonko mën ne nekk candidat. non jaaree ko ci yoon boobu laay laay dindiwaat parce que yoon baa ngi nii. mooy le mooy mooy droit bi. Mhm. mooy tribunaux yi. Mhm. mais foofu noonu Ousmane Sonko euh, depuis kañ mu ngi fay dugal ay ay ay ay ay ak ay recours mhm. depuis 2014 bu mu duggee ci politique 2016 lañ ko radié. radiation boobu est-ce que xam nga Ousmane Sonko li ñuy wax dafa ko violé ci obligation de réserve balaa Ousmane Sonko di ko wax surtout ministère de l'économie et des finances moo ko jëkk a bind Ousmane Sonko wax ko ñu ne ko violé obligation de réserve dàq ko mu dem cour suprême dara ci diggante bi affaire 94 milliards dara ci diggante bi euh, porté na plainte Mettez Gabisso Mettez Dior Diagne ñeneen ak ñeneen dara ci diggante bi un complot ourdi affaire suite Beauté dara manam toutes les procédures Ousmane Sonko engagé avec la justice sénégalaise daf ko ñàkk loolu xel mëna ko nangu donc kon mbir mi du du du mbirum yoon Ousmane Sonko xamal nako bopam ba tax na ba muy taxaw xam ne ñii ñu koy fexel lamu wax sénégalais yi du leen bàyyi leen ma ak justice déedéet waxu leen bàyyi leen ma ak Macky Sall waxu leen bàyyi leen ma ak état bi. bàyyi naa sama ko lool. Mhm. c'est c'est qu'il askanu Sénégal la bàyyi boppam kon foog na nag y a recours le recours doit être introduit auprès du peuple pour qu'il la justice est rendue la justice est rendue au du peuple. en principe mais parfois on voit des delloo qui justice bi jox ko directement. ça veut dire peuple bi defoon assemblée nationale ce sont les représentants du peuple. Mhm. mais de l' du peuple etc., directement sa souveraineté. Ousmane Sonko wala woon na ko le programme en 2019 démocratie participative parfois citoyen qui vont moo exercer directement la souveraineté parce qu'il en va de la survie de la démocratie sénégalaise. Maintenant, une élection présidentielle sans Ousmane Sonko, ça une sélection présidentielle, une élection. D'accord. Alors, euh, mais Taï, nous avons vu que le fils de parrainage, Ousmane Sonko c'est vu euh, son mandataire refusé. Euh, le, formulaire de parrainage mais en même temps nous avons vu que le Sénégal yu été xaar muy présenté 4 ou 5 mandataires qui ont retiré reti fils de parrainage euh, tey sur le plan politique euh, su fekkee ne tey Ousmane Sonko dafa dem ba tribunal bu Ziguinchor ñu rétablir ko euh, manam ñu jox ko fa dëgg mu mëna nekkati fiche électorale bi delluwaat ci langue gi wara nekk candidat bañ jorte ci mën naa nekk candidat est-ce que jàpp nga ne yow manam candidat yooyu ñu déclaré woon dañoo war renoncer tout de suite deltuwaat ginnaaw ñëwaat ci ginnaaw Ousmane Sonko wala ba tay war nañu wëy ak ay paxu jan pax yu euh ci ak seeni stratégie yobu yenen candidat ci conseil constitutionnel Birame Souleye Diop dafa dugg retiré fii ca parrainage ba pare génn dara du candidat dégg nga loolu. Mhm. moom moom moom mi dugg jël fii si parrainage. moom moo génn dara du ma candidat. kon tey jàpp euh, waxuma sax waxu Ousmane Sonko mu gagné ses combats judiciaires. Mhm. mais moom avant ça war na la ne du candidat parce que dina la sax. Mhm. retiré parrainage tax nga doon candidat. retiré fii si parrainage loolu loolu moom mooy at moom mooy moom mooy candidature. am ñoo ñàkk fii nag moom. le peuple candidat. Donc, ils sont dans une stratégie. Maintenant, stratégie, euh, est-ce qu'elle sera payante Quels sont les objectifs Est-ce que c'est une instruction du leader du passé, Ousmane Sonko Question yoyo. Mais est-ce que la stratégie est tay Ousmane Sonko del ci ci ci langue grecque. Euh, Nous ñu ñu ñom ñu stratégie je veux dire dellusiwaat euh, ñoom ñëpp si gannaaw Ousmane Sonko yóbbuwaat benn candidature am conseil constitutionnel est-ce que loolu euh, du nekk erreur au cas où tey. non euh, candidature am ñu refusé ko rejeté ko foofu. pour quel motif. nee naa la ba fii nii. candidature Ousmane Sonko c'est valable léegi waxatuma la nag ñoom ñu ne delloo nañ la si fichier bi léegi bu ñu ba conseil constitutionnel lu ñu koy rejeté pour quel motif. gars yi demul pour plan B de parce que plan B moom mooy avoué ne bii échec na.

Euh, Pape Moussa xëy na mbokk yi Ousmane Sonko duñ bëgg ñu tudd ko euh, mais mënees na ko waxtaanee mu nekk benn hypothèse su fekkoon ne Ousmane Sonko dem na ba ba ñu ne officiellement nag mënatul nekk candidat ci élection yooyu euh, ñu nga gis ñu retiré fiche de parrainage si biir Pastef lan nga jàpp ne moo war a nekk taxawaay bi nga xam ne war nañu ko am ngir fexe ba mën a dem ci élection yi ci anam bi nga xam ne xay na mooy nekk anam bi gën ci ñoom. dégg naa Boubacar Camara. justement loolu laa loolu laa euh, bu alternative amul. responsabilité Pastef la. il a raison je suis d'accord avec lui à 100 100 mhm. cent. je même plus loin en disant que responsabilité Ousmane Sonko parce que liggéey bi def nako ba paré dix ans de lutte acharnée nga dund ci bépp xeetu mettital moom Ousmane Sonko alors donc tay jii ni baye ba le bout du tunnel c'est-à-dire à quelques encablures des élections on a capacité parce que Ousmane Sonko a la capacité de poser la balance le monde qui donne, en prison à l'hôpital en liberté le pour qui donne, Ousmane Sonko mën na peser sur la balance te bu pour assumer nous nga un électorat, moom la am ak électoral fu faut, faut gagner man je pense que soit 2024 son est président soit il fait le président. Eh, c'est impératif mom la doon wax euh, ci ben jotay mané soit le cooki fait mom ou à directement ou par procuration Macky Sall que procuration la def parce que c'est une troisième candidature par procuration hein. ah. bon c'est lui qui l'a dit. encore Vous ma gagné c'est une troisième candidature par procuration donc euh, Amadou Ba se présente comme éternel premier ministre du président Macky Sall. Le point actuel a dit aujourd'hui... faire cette lecture. Oui, mais, bien sûr. Parce, que... Non, mais euh, euh, Amadou Amadouba, euh, actuellement, il est le ministre chargé des Affaires du Sénégal. Il est le président de la République. Et pourtant, il est premier ministre. Je pas, Mais quand vous me dites, c'est pourtant premier ministre. Là. Donc, quand même, vous gagnez par les peut-être qu'il va continuer à être premier ministre. <laughs> d'accord restons de voir l'année nañu avenir di di Dential. alors je rappelle que y a une émission Tout de l'actu ñu ci ànd ak euh, Pape Moussa Sow euh, ngir euh, mu indi ay leral ci ponk yu bari ni ñi faral di ci àndee ak mom sa su ne Pape Moussa ci ci fils de élection yi ba tey bi ñuy retiré par fils de parrainage ci direction générale des élections quand même amna limbu takko takko ci ay candidats yu ñu gis ñu dem retiré wala sax ñu bëgg nekk candidat ñu dem fa retiré li nga xamné moy fils de parrainage est-ce une raison euh, pour l'existence euh, du parrainage Impérativement. Impérativement. Moi, je suis d'accord sur le principe du parrainage. Mais, euh, sur le principe, vous avez dit. Oui. Là aussi, il faut. non, non, sur le principe, pas sur la modalité ni, ni, mise en œuvre. Parce que, une fois que nous le parrainage, il faut beaucoup le point et une référendum de 2016. Après, nous avons une incompréhension, nous retirer quoi euh, mais après euh, ce référendum de 2016, nous avons élection législative 2017, on a euh, assisté à une élection avec 47 listes. Nous sommes obligés de violer le code électoral pour nous voter. Si vous avez bureau de vote, vous 5 listes. Alors que le code électoral a fait listes. Mais si on avait tout, on allait voter presque 3 jours. Donc, ni parrainage entorse la démocratie, ben il y a des grandes démocraties qui pratiquent le parrainage. France parrainage élu rek mouvement. parrainage citoyen amu mouvement. élu règne. États-Unis dans le fond de 53 états il y a des candidats à Donc, Le parrainage il faut être parrainé par le euh, parti soit républicain la démocrate Nous le lay Il y a des candidats à ñu Sénégal ak on est à près de 300 candidatures mais ñii nii bu ñu leen daayoon mais est ce que mais est ce que ba tey maintenant ordonnance bi waruñu ko tegaat ci table ji justement justement c'est-à-dire ci modalité yi mm-hmm. modalité yi tey jii nii ak modalité yi mën a mel ñëpp xam nañ Ousmane Sonko day ah bon mais Ousmane Sonko déjà euh, optionnel là. il a déjà il a déjà ses 26 députés. waxtuma la ak loolu même bu doon parrainage bi un million de parrainage la Ousmane Sonko da koy maintenant nous, ce n'est pas valable pour tout le monde alors que. parfois di nga gis ay euh, rejet yoo xamante ne